على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما أم بسبيم مدنين وعبد مطالب من بعد ما رأينا فتاة زورة ذات المجد والكرم am ngeen jërëjëf ku dëgg seen baat yi di baatu gàmmu yu neex yii dañuy fàttali mag ñi fi nekkoon radiyallahu taala anhum wa ardahu wa anna bi amin ñi sosoon gàmmu gi ñi sosoon ziyaara bi ziyaara bi mooy ban ziyaara Ceerno Adama Gay ca ñàng edi bu la neexee nga wax ni ca waalo moom la ñuy waajal nii moo tax ñu defaat ko toogaat toogaay bi di ñaan borom subhaanahu wa taala mu yegg ñu ceeg jàmm te ñu fekk waat ko yeneen at ak jàmm jaar ceerno aadama bi nga xam ne ren jii mi ngi am fukki fan ak ñett ci weeru avril bii di ñëw dajeeg samdi mu nekk ñaareel bi samedi ci weeru avril bu nekk lay faral di am ñu ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala bakkan yóbbuñu fa pour waajal ziyaara boobu moo tax ñu toog fii euh, balaa ñoo dem fen ñu jox a seex euh, Mouhamadou Ousmane Diagne mu euh, ubbil ñu Euh, débat bi campé ko waxal ñu tuuti ci a seex Thierno Adama Gaye mi nga xam ne moom la ñuy defal ziyaara nekk le 13 avril te gàmmu gi nekk le 12 nekk aljuma euh, ci euh, ndigalu ci njiitu Thierno Mouhamadou Adama Gaye alxalifa Thierno Mouhamadou Ousmane Diagne bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa radiyallahu an alqutbi almaxtuum والبرزق المعلوم شيخنا أحمد بن محمد التجاني وعن خلفائه ومقدمه وتلاميذه وأهل مودته kon mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ak fu ngeen mën nekk ca gox yi ak gox goxaat yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di leen baalu xaq di leen di leen woo di leen woo diine xeexoo euh, jokk bokk waaye xeexoo diinel islaam ziara Ceerno Adama Gaye ni ko imaam Hamidou Sow waxe dees na fa ñaane dees na fa jokkee bokk waaye des na fa amee lépp lu ñu sàkku ci ci ci àddina ndax ziyaara jaamu yàlla bu yàlla gërëm muy nu Adama Gaye gane foofu ci njàng iddi jàngee fa alquran amee fa lépp lu ñu fay am ci ay mbaax waaye mu wër réew yëpp nag ceernu Adama mbaaxam wër na réew yëpp kon nag ziyaara boobu saa yu am mi dellu see ñu koy def foofu ci njàng iddi di si woo mbokki jullit ñépp nag waaye di di leen woo ca turu Mouhamadou Adama Gaye al Khalifa ak ak ak hadaraam ñu xamee ca Sukkoog Jàmmaal ak Njàng waaye ak Njàng yëpp ñu xamee ca Ñandaan Njaayeen Gede Njuum ak mbooleem fa doomaanu Njàng nekk ñu leen di woo ca ziyaare booba ci bés booba di leen wo di leen wax ngeen ñëw bokk ak ñoom bés booba lépp la ñu fay jëlee ci ay yiw ngeen am ko fa kon boog imaam Hamidou Hamidou Sow wasalaamaaleykum wa waaw jërëjëf uh, Thierno Mouhamadou Ousmane Diagne yaakaar naa bu ñuy wut ku wax ci radiallahu taala anhu ardahu anna bi amin Thierno Adama Gaye ñu jox ko Thierno Mouhamadou Ousmane Diagne moom la arab yi wax naan atayta al qawsa baariaha wa askanta daara baaniaha jox nga nit ki li mu mën yal nañu yàlla may yóbbu ci ak jàmm wax nañ ko léegi jaare bi nekk fukki fan ak ñett ci weeru avril 2019 Euh, gàmmu gi nekk le 12 yëpp nag nekk ci ndigalu ni nga ko waxee Thierno Mouhamadou Ousmane ak euh, njiitalu ak euh, ñaanu alxalifa Thierno Mouhamadou Adama gay yan na ko yàlla yàggal taxawaayam bi may ko dund ak wér ginnaaw loolu nag ñoo ngi jox suñu rakk a seex Thierno Moussa Wele mi nga xam ni kenn la ci kër gi kenn la ci ñàng waaye mu nekk kenn sax ci fuuta ñëpp xam taxawaayam ci këru diina yëpp rawatina bu ñàng wootee muy ñëwal ñu ci làmmiñu pulaar waxal ñu ziyaar bi kañ la ak ñan lañ fay woo ak ñan ñoo ko jiite bismillah ceerno Moussa a audu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadan sallallahu alayhi wa sallam salatan tuarrifna biha iya bandiraɓe julɓe bandiraɓe l'islam on calminama goto foof inde muɗum e yettode muɗum nokku fof ɗo woni sababu jonde men ɗo ko tintinde on e teddinirde on ziyara baɗetenode hitande foof to e ñanga idi faade e allah mo aduna foof andi hono ceerno men ceerno adama gayi ziyara makko hikka inchallah so allah wurni en hawrata ko ñande sappo e ɗiɗi lewru avril e sappo e tati so waɗama hirde ñande sappo e ɗiɗi so weeti ñalawma samedi o ñande hen wonata ziyara o inchallahu ina teddina hen dendagal bandiraɓe julɓe fof ɗo mbawi wonde ardina e teddugol ngal hono hono taniraɓe ceerno men cheikh tijani radiallahu anhu sherif abdoulmoutalib e dendagal surafa o hen foof naatiɗo eɗen teddina hen hono ceerno men ceerno mahamadou bachir e dendagal ceerenɓe fof hay goto woppaka E, eɗen noddi denndaangal julɓe yo ngar nooto e keewal e gardogol halifa men ceerno men ceerno mahamoudou adama gaye kañum woni ardina golle ɗe e, ina noddi denndaangal banndiraaɓe ina eewna e, e ngooɗo noddaango eɗen ñaago allah yo allah hokku en hawrude heen haga assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eyyi kay ceerno moussa wele a jarama ko mbiɗa ko yoni nani paami wonde faya koye jiyare ceerno adama gaye e sappo e tati lewru avril arowru nduɗo woni e 2019 samedi hawrata aljuma o woni hirde nde kala gonɗo heen almuudo ɗo mbawɗa wonde fe aduna fof e jogli ɗi aɗa nodda heen ko gueɗel moon onon jeeyi oɗon paɗa toon e keewal oɗon paɗa toon no gardanuɗo toon gariran toon jarajef euh, moussa léegi ñoo ngi jox kaddu gi bu ñu waxee ceerno adama gaye ci yaatoom bi ci xam-xamam bu matale bi ci maslaham bu rëy bi dafa boole woon pulaar wolof sooninke naar dafa demoon ba ñoo xam ne ñi sax du làkk yooyu nekkoon woyu si ko loolu moo tax buy wootee ñëpp ñoo koy woyu waaye tamit woote bi ñëpp ciy bokk ñu jox euh, kenn ci kër gi di taaliba bu wér muy euh, ci Mouhamadou Bàcc Jaabi mu wax ci làmmiñu soninke woo suñu mbokki soninke yi ña cay taalibe ña cay doom ña cay njaboot ndax ñoom it ci njaboot gi lañ bokk ñu fàttali leen ñoo ngi jëm ci ziyaara Ceerno Adama gay nekk treize ci weeru avril gàmmu gi nekk douze ci weeru avril ci aljuma gi mooy gàmmu gi samedi bi nekk ziyaara bi ni muy amee at bu jot ñaareelu samdi ci weeru avril bu nekk lañ koy bëgg def incha allah euh, Mouhamed Bathia assalamualeykum maɗen coni ko ngabban sukuniti tohondi jaam soni kan kanko mana be suga o maha o hahilli o ziyare o ziyare suga dabarin sine su ñanga idiya oga dabarin sere mbeɗa yan o halifinaɗe gatin da ceerno adama gaye a kem pati hware me nyandu ga sin chenama morgai chenama da adam ga ya ni ziyare ke denge o ga dabari ni ko tambe won dabari ni khason tam mundu fillo ado tam mundu sikko tammu do fillon kota won gammu nya dabari na wuro illenga na kare wona ziyare general dabari wo mari mun kil se su ga nu kusannal kharalle mo ga nu kusannal wo kha bismillah nyanga yidi ku pitu fildi noko o gilli yere araban kota nyi wona kiñe nonga rabanelle wona tuma alhamsa aljuma wona gollum joppa ma jima wona yillerin wo bansuhil hana riti diine hana riti maraye bisimilla ha ñanga yitti euh, mamadou bacca jaabi a jarama e ko kalɗa ko e saron kullere minen min nanani kono min paami wonde koye jiyaro kalata wonde o waɗete ko ñande sappo e tati avril Eh, hirde nde ko aljuma julɓe fof ene nodda heen sabu eh, ceerno adama ko neɗɗo aduna fof neɗɗo jogli fof on noddama heen surtout eh, koreji men alamɓe kala ɗo mbawi wonde e kala ɗo mbawi wonde e on nodda heen saabu ceerno adama ko neɗɗo moon ceerno mamadou adama ko neɗɗo goto e moon a jarama ceerno mamadou bacce léegi ñu ci sokhna fat haadi dieyi madame diop Euh, mu teewal fii képp koo xam ne kii jigéen nga ci nekk hadara Ceerno Adama Gaye nekk ci njabootam nekk ci taalibaam nekk ci délégation yi nekk ci ay daayiraam rawatina yen ñiy jógee ci taax yi bu ne Dakar tekkiwul Dakar fépp fu réewu taax nekk te dia e, daayira di fa jóge di dem ñanga idi loolu moo xew di nekk fukk ak ñett ak fukk ñaar aljuma ak samedi ci weeru avril loolu jigéen ñooñu yëpp ñu ngi leen ciy woo ki leen fi teewal tey jii di wax seen tur mooy Faati Haadi Jeey madame Diop ñu bàyyi la ak kaddu gi nga woo jigéen ñëpp ci xew-xew bi ñu jëm bi muy ziare Ceerno Adama Gaye bu ñàngay di auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum sama mbokki jigéen ñi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di wax ne woote bi nag ñoo ko déggandoo ziyaare la ñu wax ziyaare Thierno Adama Gaye ca Ñanga Edy le euh, le treize ak le douze départ bi le 10 la Pikine Ikotaaf ca buntu jumaa ja jumaa cité 1 ñu ngi maa ngi leen di ñaan nag na ñëpp teel a ñëw ndax ñëpp xam nañ ni dëkk ba sori na suñu teelee ñëw ndax ñu yàlla ñu ñaan yàlla mu teg ñu ci yoonu jàmm ndax ñu teel a yegg suñu yeggee jàmm ñu mën a noppalu alxames ajjuma euh, euh, noppalu alxames ajjuma nañ teel a génn mooy gàmmu ga na ñëpp sañse ba rafet comme ni ñu ko daan defee fas yéenee dem ca gàmm ga gàmm ba ba set ñu dem préparer samedi mooy jour ziyaare bi bu ko defee ñëpp daal di solu solu ba rafet génnaat toog teel a ñëw nag parce que comme ku ñëw ñun suñu ñun lay fekk si ñu ñooy dalal gan ñi nañ teel a teg bu ñu kenn jiitu ca tànt ba nañu teel a dem toog boole ko boole ci yar boole ci téggin ñu ngi woo ñëpp nag woo surtout waa ñàng idi waa sokku waa jàmmal rawatina nag mboolem gox goxaat yi ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi woo jullit ñëpp di ñaan yàlla yal nañ yal nañ ko fekkee jàmm suñ ko fekkee yal nañ ko tal yal nañ ko def ay déwén déwén yu bëri barke Seexu Tijaan jërë ngeen jëf. waaw kay ma dem Diop soxna Faty Hady Dieye yaakaar naa li nga wax man na rafet na te jot na jigéen ñëpp dëgg nañ la te ñëpp dinañ la woyu si ci nga xam ne yaa ngi wax ci seen i tur di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla may ñu waat ko fekke waat waxtu wi déwén ba nga taxaw fii di woowaat sa mbokki jigéen ñi eh, mat na alhamdulilahi rabbil alamin jëf mbokk yi ñoo ngi ñëw nii jëm ci ziyaara Ceerno Adama Gaye bu ñàng idi ci édition boo xam ne bii 2019 lay am ni ko soxna Fatiha di waxee ñeneen ñëpp ñu jiitu wax ko mi ngi am fukki fan ak euh, ñett ci weeru avril ndax dañ ni ñaareel bi samedi ci weeru avril bu nekk ci lay am bu amul ngant ren nag yàlla def na amul ngant ci lañ koy doxalee bu soobee yàlla aljuma ji nekk ci guddi moom mooy gàmmu gi lu jiitu gàmmu gi lu jiitu ziyaara bi muy samedi ak dimanche boobu ni ko soxna Fatiha di jëy waxee ñoo ngi fi jógee euh, Euh, le 10 nekk àllarba fañ daan joge ci cité 1 ci wetu jumaa ji bu soobee yàlla bu 7 heures bu 7 heures jotee lañ fi bëgg a jóge lu jiitu loolu tamit ñi waxal leen ni ziyaare bi at bu jot ni mu daan amee mi ngi am ren ci euh, ndigalu ak ci njiitu Mouhamadul Cheikh Mouhamadul Bachir xalifa al umariya moom mooy jiite gàmmu gi ci ndigalam la nekk ak sopp ak euh, bëgg gi mu bëgg a euh, ñàng iti rawatina baayoo gi mu baayoo Ceerno Adama di ñaanal yàlla borom subhanahu wa taala yàlla yàggal ko ci suñu kanam waaye tamit mi nekk ci teewaayu. cheikh madaani taal madaani muntaga moom it euh, bés bésam la sëriñ bi taalibaam la woon te doon ko tiitaroo ceerno du ñëw feddilil ko ko bu ko defee képp koo xam ne kii kilifa diina nga foo mën a nekk ci senegal foo mën a nekk ci Fuuta képp koo xam ne taalibe nga foo mën a nekk ñi ngi la ci woo di la ci woo nag ci turu alxalifa ceerno Mouhamadou Adama Gaye mi nga xam ne moom la yàlla teg yen bu diis boobu di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala yen boobu yàlla may ñu womatu ci ginnaawam ndax lim njëriñ bi fi waajuram bi bay Ceerno Adama Gaye ñu yàgg ko jëriñoo bu ko defee départ bi mi ngi nekk le 10 ni ko soxna Faati di Jeey waxee ñu teel a ñëw ndaxte Fuuta dafa xaw a sori waaye tamit tàngoor la te oto tamit oto moom oto la tudd kenn xamul ay mbiram ñaan yàlla bu borom bi subhaanahu wa taala rek ñu dem ci jàmm bañ am benn jafe-jafe ni ñu ko daan defee at mu nekk bu ñu jógee foofu nag ñoo gi def escale Dagana asalam Dagana kër sëy ni may jëy ni ko waa ñaa nga xamee tur boobu moom la ñuy fa la ñuy añee ji di nuyu waa Dagana yëpp di leen ñaanal borom subhanahu wa taala taxawaay bañ fay taxaw yàlla yàgg leen ko may ñu koy taxaw ak fara yañ cey def yàlla yombalal leen ko ci at bu at bu jot bu ñu jógee foofu ñu fanaane ñànga eddi ci euh, guddi àllarba googu ci guddi la ñuy yegg ñànga eddi bu ñu yeggee bu ñu yeggee alxamis ni ko soxna Fadiha di waxee alxamis quartier libre la képp koo xam ne kii am nga koy ziyaara képp koo xam ne kii am nga koo xam ne kii da nga koy gaale képp koo xam ne ki amoon na xew nga bëggoon ko ndokkali nga def ko bu ñu demee ba euh, aljuma nag ci euh, euh, aljuma ci guddi ginnaaw aljuma ci guddi li jiitu aljuma ci guddi ginnaaw julli aljuma gi ñoo ngi am benn hadara bu mag boo xam ne bi képp koo xam ne kii kilifa diina nga ci fuuta képp koo xam ne kilifa diina nga foo mën a jógee ñu daje ci attu Ceerno Adama Gaye ci ndigalu ak ci teewaayu Ceerno Ah, Mouhamadou Adama Gaye ñu def fa hadara boo xam ne bii comme ni ñu ko doon defee at yi passé ñu defaat ko ren ci hadara bu mag adduna yëpp teewe ko ñu indaal suñu soxla yëpp lax lépp mënees na faa fajo soxla yëpp mënees na faa fajo bu guddee ci njiitalu Ceerno Mouhamadou Adama Gaye ba tey ñu def fa gàmmu fanaanoo ko bët set képp koo xam ne ki taalibe nga képp koo xam ne ki sëriñ nga képp koo xam ne ki jullit nga ak foo mën a jógee gàmmu gi sa gàmmu la nga ñëw teel a ñëw ni ko soxna si waxee teel a ñëw teel a jël place yu baax yi teewe ko ñu fanaan ko ba bët bët setee nag ba bët set euh, si samedi gi moom mooy nekk ziyaara bi ziyaara bi wax nañ ko ci Thierno Mouhamadou Bachir moo koy jiite Thierno Madani Tall di ko teewe waaye ci ndigalu ak ci jiitu euh, alkhalifa Thierno Mouhamadou Adama Gaye ziyaara bi commencé sept heures ci ay kaamil kaamil yi sax euh, xaarul boobu Thierno Mouhamadou Adama Gaye alxalifa nee na képp taaliba nekk képp borom xam-xam nekk képp koo xam ne kii xam nga dara foo mën a nekk dafa ay kaamil ñaanale ko ko waajuram boobu ñaanale ko ay taalibaam yi ñaanale ko ñi fay ñëw yàlla may leen ñëw ci jàmm ñibbi jàmm ni ñu ko daan doxee at bu jot bu ko defee bu kaamil yi paree ñu dem ziyaare ji rawdu ba ci samedi ga ànd ak délégation yi fay ñëw yëpp seeti Mouhamed Thierno Adama Gaye fa mu tëdd sëggu ñàng yi ñu ziyaara ko euh, xanaa li mu waxoon dikk na ne woon na man Ceerno Adama day suma euh, dëddoo àdduna am naa juma am naa euh, zaawiya am naa kër waaye yóbbu leen ma armeel ya te ngeen teg ma ca buntu armel ya su dee maa yóbbaale yiw ma sédd ko képp ku fa ma fa fekk ak ku ma fa nar a fekk ma fa fekkee yiw ma sedd ko yow ko fee délégation yëpp fekki ko fa ñaanal ko yiw boobu moom ak ñi fa tëdd ak ñi fa nar a tëdd yëpp ñaanal leen yàlla bu ko defee ñu dellusiwaat nag ci euh, tante bi tante bi bu ñu fa dellusee ci ndigalu euh, Thierno Mouhamadou Adama Gaye euh, de installé délégation yi gouverneur préfet sous préfet ku ñëw rek ci délégation bi ku ñëw rek ci jiital nguur gi ñu recevoir la nga indi kaddu Euh, ministre de l'intérieur indi kaddu premier ministre indi kaddu euh, président de la république son excellence euh, sëñ monsieur Macky Sall boo ko defee ñu Euh, déglu la bu ñu la dégloo Thierno Mouhamadou Adama Gaye moom mooy jël kaddu gi delloo njukkal gan yi ñaanal leen delloo njukkal nguur gi ñaanal leen wax leen doléance yi ñaanal leen ni ñu la daan ñaanal muy nangu ñii ñaan borom subhaanahu wa taala képp koo xam ne kii yaa ngi fa bëgg a dem yàlla yombale la yoon ku bugg ku ku bëgg a dem yàlla yombale noo fa demee yàlla may la lépp lu ñu fa ñaan mu nangu ko te lépp nekk ci njiital alxalifa Thierno Mouhamadou Adama Gaye di ñaanal waajuram boobu jàll radiallahu taala anhu wa ardahu anna bi amin yàlla yokk yërmandeem ci moom waaye yàlla ñun ñëpp yàlla nangu ñu suñu ziyaar yàlla nangu ñu suñu gàmmu di ñaanal fu jullit jógee rek yàlla may ko mu dem ci jàmm dellu si si jàmm Maodo nee na wa abdu mutalibin min baadi ma rayla fatati zorati zatil majdi wal karami